salaamaaleykum wa rahmatullah bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha ya rasulallah ma way wabnayhimu sibtayni alaamil huda kan moo fi gën a bëgg sayduna muhammad بمحمد وببنته وببانها وابنيهم سبتين آلام الهدى محمد الأمين وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى فرج سقام العبد واكسف كربو كان مو في غنا بغ يونن يا خير من مد العساة له اليدا فرج هموم المسلمين وكربوا يا خير من مد العساة له اليدا أمين موي دومي وبين ستي أبدي مناف دي ستي تزورتا يا يوم مصطفى لا علينا على bi wa alayhim ajmahiina salaama rabbina bokki ndar géej ci yoneen amina mooy doomi wabi sëcci abdi manaaf di sëtti ci zurata yaayu Seydil Haaji Maali neena ala nabi wa alay ku def na nga fekk ajmaina salaama rabbina daimana أنا صبي أنا ابن كلاب وقل فيه انتزاب وهما عاتكة خلاهيد ورقا يرون كان على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما عام وكندر كتير أمها أي أمها منتي أم حبيبي فأم سيد الحاج مالك على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما يفلني تيامنا وبرة البنت عوف أمومي حبيبي لا تزل دائما في البركة يرون كان على النبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما عام أنا صبي رفيق سيء لقاء المصطفى مع بارة وأمي حبيبي زيد الحاج مالي على النبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما عام يزفلني جيانا وبرة البيت واللقاء على كعب وهر ولا تزيد الحاجب قريشي ما محمد مالنا على نبي وآله عزرائيل سلام ربنا دائما سيري بيسي سمام نينا لله دار الذي حد حالم مدحه جزاء مولاه خير خير محمود مالك على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما أن صفيا فالعرب خير أناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيه ما محمد روندان على نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما سفلني جيانا وبارة بنت عوف انقلابة أمور ما مضرون كان على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائس لخطي من ودبت الأمها قلب مدبت كنا هؤلاء إيماننا على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائمنا سفلني جيوننا خديجة وعلي وكنها بستير وما بلغوتي أنزل يا سلام ربنا دائما يسلمني تيونين ثم بن عوف وزاد الأصحاب لخيجك لخيجك لخيجك أبو بكر أنا عمر لخيجك solo saaba yaago ana aliyo saaba yaago loxo yi ca kaw saaba yaago soppi sëñ baabu gis yoo saaba yaago soppi sëñ baabu gis yoo saaba yaago ana soppi xalifa saaba yaago mu jaram loxo الله محمد زاب يا رسول الله محمد زاب يا رسول الله كن حيانا زاب يا رسول الله محمد زاب يا رسول الله محمد زاب يا تمتم محمد زاب يا رمضان محمد زاب يا رسول الله محمد زاب يا خالد دغلو دي دجنا بيكو يا رسول الله محمد صاحب درمك انا تجاني صاحب يا خالص نمنا دج ولا دجنا بيكو يا رسول الله يا محمد صاحب يا خالص نمنا دج ولا دجنا بيكو يا رسول الله

وياك ورا يا رسول الله مدوسا يا جامك مدوسا بيا تمتدي لفتاك يا قورا يا رسول الله انا جلدي انا جلدي يا جامك مدوسا بيا خول جس دغلو دغلو لامبو دنا بيكو يا رسول الله مدوسا يا زابيا ميميا ميميا حمد زابيا سنة أنا جلدي أنا جلدي يا رمضان حمد زابيا إبن عبد الله رحمة إبن عبد الله رحمة إبن عبد الله رحمة إبن عبد الله Bobi Abdoulaye Dia Bobi Kill your name. aminata yaay ji ci yonel aminata yaay ji ci guddi ki yonel aminata yaay ji ci guddi ki yonel ana soppe yonel yana ku bëgg yonel loxo ca kaw yonel ana soppe yonel yana ku bëgg yonel seen loxo ca kaw yonel waa darke ci lani waa yow yonel yéen yéen gàmmu tey waa darke ci lani waa yow yonel Muhammad moo di turam lu baax yelloo na nabi yow loo mën a wax doo paasi kii baax na loxo yi mu di xaajee ba ñëpp nelaw loxo ca kaw ñu dund nelaw dani fanaane teg yonen loxo yi nabi jar na ko Mustafa jar na ko ana soppi sëriñ ba jaaral loxo yu càkk ana soppe yi sëñ Babacar kum ko ci jaaral loxo yu càkk ku fi am aajo yëkkatil sa loxo ku fi am aajo yëkkatil sa ñaari loxo ku fi am aajo te nga bëgg mu gaaw a faju jëlalu oto dem ziyaar sëñ Babacar may xalifa Ababacar si wax leen bay si mbay yéene leen bay si mbay Serigne Cheikh Al Maktoum yal na ko yàlla gërëm amiin moo demoon Ndakaaru jël fa gaynde ga gaynde yóbbu na gaynde bàkk leen sëtu Maodo lam bi diina saati naa doomi soxna ya démb Cheikh Tidiane lan wàlle bàkk leen sëtu Maodo Cheikh du tiit ba jóg daw Cheikh du mer ba teeyadi Tidiane ma tom du yox-yoxi bàkk leen sëtu Maodo ruq am na borom Serigne am na borom Serigne Cheikh ay borom ruq bi ku bàyyiwul duguru dina fekk la ci biir ru xëyaw di la sa ndigg na sëriñ Cheikh ay borom du sëñ al amin yal na ko yàlla al amin al amin yal na ko dara ana taalibi Cheikh ana taalibe Cheikh Serigne Abdou moo daan wax ni kon laaj ndax taalibe Cheikh nga ngay diit diital nee na dog nga ci tariixa bi ne bu nee la ndax tiijaan nga danga naan piir ana tiijaani digguma leen ana tiijaani ana xanaa xamuleen ñun tiijaani bu yowmal xiyaame ñu Seydina Muhammad ñuy bokk kër ca aljana ana tiijaani eh neexul ba neexul waaye koo gis mu rafet sol rafet gisoo ni ma sañse di xeeñ lu neex jëbaleer boo koy woo nee ko taalibe cheikh moo tax ñun taalibe cheikh yi ñoo am sëriñ bu musa wax lii su ma ko waxee di ngeen xam ki mu doon ne mësuma mooy yàlla mësuma fecci kóllëre mësuma dogu mbokk mësuma wax lu amul mësuma leb bor bu ma fayul waaye xam ngeen ki may wax waay e laajaat naa leen ko kan la ñépp nee na Serigne kan moo fi gën a bëgg Serigne Babacar ki fi yor cër ak i dogal am i sañ-sañ ci di yëguwul moo mooy sëñ Ba yëpp cërët ak dog yore nañ la ci diine yaa yëgul moo di mooy sëñ baaba mbër mi kenn tegaale wul te mu daan goodi mooy sëñ baaba xalifa moo baynal ardin ki mu doon moo di mooy sëñ baaba xalifa moo bayna samawat ki mu doon moo aca mooy sëñ baaba doon nu Mawdo doon nu Cheikh saga dem moo di mooy sëñ te ca barzaq tey wax ak waa ndar yi moo i dogal yore la njaay ci diine jaay gi gul moo di ko ku fi gën a soppi tafsir gaye yet bu nu sàggane ci Babacar ana soppi tafsir gaye yet bu ci Babacar ana soppi Chérif Mawe yet ku ci sàggan ñoo dem bala mbay lii ku ci dul ñëw gi ku ci sàkk suñu gàmmu gi suñu gàmmu gi suñu gàmmu gi waa dësis ñu organisé guddi yeneen bi tiijaan yi ñëw nañu murit yi ñëw nañu xaadiriye ñëw nañu laayeen yi ñëw nañu tasir moo ma woo ni ma caat dama bëgg nga ñëw bégal waa ndar ngir yónneen bi dama am kilifa ma woo alaaji duudu kenn mbay mu ni ma demal nga teewal ma ngir yónneen bi ma teewal tiwaawan ana taalibe Cheikh ana taalibe ana taalibe Cheikh ana taalibe Cheikh taalibe Cheikh yoo ko yor Tijaani ñëw nañu Tijaani ñëw ana soppi Cheikh Tijaani gis naa leen yéen ñëpp ñëw nañu Tijaani ñëw ku ci bëgg Serigne Babacar bëgg Serigne Babacar jugal na màggal yónneen bi al الأمين الأمين الأمين ديكوما لين الأمين الأمين سيرين عبد غنينا يا أمين يا أمين sëñ Abdou mooy Amina mooy Amina moo tax ba ma demee Saalum ma ni leen góor gi wàcce na indi fa courant ba indi fa rang-rang ba dem ba Tiwaawan lu fa baax moo ko fa def defar na jumaa ya defar hôpital ya ku feebar mu faj sëñ Abdou ku dee mu de jël al amin wàcc na jirimi jooy nañ jirimi jirimi jooy nañ taalibi jooy nañ zarafat ayna ya dama an waaye ku sopp Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine nga def kon waman lii waa ndar ku lii Seydil Haaji sama turandoo turandoo moo lii moo tax ma jóge Tiwaawan ñëw fii tafsir woo ma fii ma leen di wayal lii ku jug taxaw yàlla fi teewaat bis bu mel nii lii bi همة مثل أحمد ومن لي بإحراج الحقائق ناصحا ومن لي بتدرس الكتاب ومسندي ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معاني بديل بمسيده ومن لي بورش بل جنيده ومن لي بنجم في النجوم وموصل كسب سيد الحاج مالك جوغاتل تخو أصولك سيد الحاج مالك يا مصل عرودك سيد الحاج مالك مام يا مصل سيرة البدر مقودي ببنين يوم آه ما شاء الله tabaarakallahu